waaw Ibrahima Dia si gestionnaire cimetière Yoff ñu doon am fukk avant avant pandémie bi et fukk fukk ak ñaar ñuy dem ba léegi bu pandémie bi amee dañuy dem ba ñaar ko kon dafa xaw a doublé dégg loolu amoon na fi mooy bu début pandémie mooy 2020 mars avril mai juin yooyu mais après deux mois ci ginnaaw nii deux mois ci ginnaaw deux trois mois yëf yi gënoon na wàcc Euh, ñu delluwaat presque ci fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak ñett yooyu sax fukk ak ñett sax foofu fu ñu ko fu ñu ko lim moom dafa bari mais delluwaatoon nañu ba ci ba loolu mais deux semaines ñi jënd nii franchement man de ba ma fi nekkee ba léegi nekkoon tamit yo beleer balaa ma fi ñëw musuma enregistré une trentaine par jour franchement mosul ma am lu dama mémoire suma bi ma ko ba léegi guléet muy ren gii ci deux semaines yi laa koy doog am ay 32 tegle naa ñetti fan yi nga xam ne 32 33 34 yooyu na fa ba dëmb nag laa gis ni wàccaat na ba 28 mais 28 ba léegi dafa bari dafa bari franchement waaw waaw Covid bi bon xam nga lu ñu tombé moo ay gaaf tuuf Covid mais mun na bañ doon Covid bi tam directement mais Covid bi implique euh, impacté na ci tamit te bu ñu fàtte tamit ñu ko ñu ngi ci euh, kii euh, début hivernage yëf yi prolifération maladie yi dafay dafay bëri sibirus yi grippe bi ak yooyu tout ça yooyu yëpp tam dafay joué boole ko troisième vague bi ñuy wax ni voilà c'est compliqué ko mais mooy li nga xam ne moo am daal

te ñu ñuy wax ni troisième vague bi ak variant yi am nii jar na jar na moytu jar na ragal daal bon pour revenir à votre question là mooy maanaam euh, kii bi ñu mu tëdd ñoo ñu ngi respecté ñu am tout ça mooy maanaam dajaloo bi tàncooloo bi mais départ bi dañu doon ne vingt enterrements par jour te dañ ko doon respecté ay yu bëri ñëw nañ fi indi fi dese ñoom ci état bi lañu nekk respecté loolu ay vingt vingt vingt personnes te da ngay doon dis sax nit ñu jël téléphone woo la nga ah, man ma war a ñëw enterrement il paraît que da ngeen jël ay mesures du ñu dépassé vingt personnes wala dix la ma leen non dix ba vingt personnes baax na dégg nga dañ doon euh, kii éviter euh, loolu yëpp pour mun a respecter distanciation bu ñu doon wax mooy un mètre mais léegi moment yi toll nii franchement ay deux trois cent personnes ñooy ñëw su ñu ñëwee fii di fi jullee fii jullee fi sax léegi erreur la man je préfère que ku ñuy jullee ci kii doog ñëw nga xam su ñu ñëwee dem directement fii dañuy ñëw di jullee mais tente bi dafa kii bi mbaar bi dafay fees del ba dem ba ci ba ci biti alors que waaw. waaw non état bi kañ mooy lu mu doon def lay def rek mooy maanaam te tamit di gën a ñaaxal tamit. maanaam gën a sensibiliser waat nit ñi et puis sensibilisation bu état kese mun nga sensibiliser ay nit ne leen lii ak lii ak lii su ko parce que nañu respecté quoi lii technicien de la la santé di wax ñoo ñu gën a xam lu ñuy def ak lu lu ñuy wax nii ñu dañ koy dañ ci wax nii rek ay constat la ñuy def am mais ñun on est préférant à la matière lu li nga xam ne dañ ko xam dëggantaan mais dañu gis ay constat la ñuy def bu leen def lii ñu ñu ñaa koy def bu leen waaw suñu leen def leen dix gars yi def mille mais c' est c' est pas possible c' pas possible il faut que ñu jéem a góorgóorlu xam ne xeex bi yëpp ku ci nekk ci jaww ku nekk war na mën war na ci mën a jàpp xeex bi du état xeex bi c'est man mii la ci man dama dama ci war a xeex pour xeexal sama njaboot parce que ñoom demuñu dikkuñu man maay xëy maay wàcc maa leen fekk ñoom fu ñu toog la ñu toog te virus bi comme ni ñu ko doon waxee virus bi du déplacé wu. li xam ne soo ko contaminé nit yow yaa boobu yaa ko jëlee fii jëm yow jox ko keneen mais nañ nañuy respecté quand même euh, kii te xam ni bon ah yëf daal l'heure est grave ah l'heure est très grave waaw waaw ñu leen di leen gërëm di leen sant te di xam tam ñu wax ñu leen jàpp rek dañ ci jàpp yàlla suñu borom moo ko fi indi dina ko fi jëlee incha allah